Euh, asalaamaaleykum monsieur les ministre ñu ngi leen di nuyu di nuyu suñu collègue député yi teew yëpp li ñu fi dajalee loi d'amnistie la loi d'amnistie nag mooy chart boo xam ne bii yitte bi muy dox mooy indi njëgal ak baale ci biir askan wi bu ñu xoolee ci Sénégal ki nga xam ne bii moo yor mébé bi maanaam ki nekk ci cuggal coggal guyam mooy président de la République ndax moom la constitution may moom kese muy càppaacoli ci wàll wi mu mën koo mën a indi te mu am fu mu ko sukkandiku ci constitution bi àdduna bi yëpp wërngal képp saa yu su loi mel nii ñëwee indi na jiixi jaaxa musul am foo xam ne fii nit yi dañuy def unanimité ci wàllu dem d'amnistie amul fenn et dëkk yëpp boo fa jaaree ñàkkoon a njëgu Afrique du Sud bay ñuy waxee Rwanda ak feneen ak feneen ñii ànd nañ ak moom ñii ànduñu ak moom ñi àndul ak moom nag sax dañoo wax ni dem loi d'amnistie dafay violer le droit international am na ñu wax ni dafay anonymiser te dafay virtuel day tax doot kenn dootul jëmmal ñi nga xam ne bi ñoo def yenn njombe yi maanaam lu jëm ci ay crime wala ñu wax ni dafay criminaliser ay innocent maanaam koo xam ni kiy deful ba mu nangoo dugg ci loi d'amnistie jàpp nañ ni dañu mën nañ jàpp ni kii dafa borom njombe la woon wala muy yokk ñàkk mbañante ci biir askan wi wala muy tere muy indi li ñuy wax l'effet dissuasif de l'exemplarité lii lépp bu dajee li mu jur mooy fii ci Sénégal dañoo toog ki ko may moom mu ne moom mooy indi une loi d'amnistie ñan ñoo mën a am njariñ ci loi d'amnistie bi victime dama ci dem rapidement dañoo wax ni manifestant yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci cas bi ñoom la ñuy wax les victimes victime nag boo ko indee mën nañu leen xaaj ay pàcc yu bëri victime direct victime collatérale victime direct kii dafa ñàkk bakkanam kii dafa gaañu kii dafa yàqule ñooñu ñëpp ay victimes lañu et victime collatérale mooy ki nga xam ne moom jotewul ak manifestation dara tey njombe dal ko ci mu am naqar bu mu ci mën a jële damaa dégg suñu collègues yu bari tey jii ñu wax ne bu ñu fàtte les victimes ma wax ne les victimes ñun la parce que ñun ñoo xam seen i tur ñun ñoo xam seen i njaboot ñun ñoo xam seen i wayjur seen turu papa seen yaay seen turu jabar seeni i doom ñoo xam fi ñuy liggéeyee ñoo xam ban métier lañu ñun ñoo xam seeni avocat ñun ñoo dëkk ñoom di dox di leen seeti ci prison bi ñun ñooy jël suñu xaalis bi yóbbu ci kaso bi pour ne jënd leen lekk bu leen lekk lekku prison waaw ñun ñëpp la ñun la on l'assume pleinement biñ leen di jàpp ci dëkk bi ñuy toog di wax naan bu ñu fàtte victime yi kenn neewul nañ bàyyi ñu ñu jàpp waaw lan moo tax tey ñu ne nañ leen bàyyi ñu ne laajte lan moo tax ñu war leen a bàyyi lan moo tax madame la ministre damay wax ni tey monsieur le monsieur le président de la république mu ne dem d'amnistie jël initiative moom ci boppam ñun laajuñu ko mu ne dafay indi loi d'amnistie mais duma ko ni déedéet ko ni ndax moom la ko constitution may bu ñu bëggee loi d'amnistie ba dañ ci réew mi dañuy indi fii dindi suñu code constitution ne dañ ko ciy dindi kooku su boobaa kenn amatul sañ-sañu wax ci loi d'amnistie loolu nag mën nañ cee liggéey suñu noppee en attendant madame la ministre dafa am dañoo produire livre blanc wax ni ay coupable ñu ngi nii ñii dañoo rey nit fii taxaw nañ fi sax ne ñun ñoo ñun ñi dee ñun ñoo leen rey am ñu taxaw ne ñun rey ñu alkaati moo rey wala gendarme moo rey victime yi bu ñu leen joxee tur jox leen jëmm ba noppi te ñu mën leen a lim te xam leen ñun ñu mën leen a lim te xam leen laa wax bu kenn mbubboo ki takk bracelet parce que ñu jàpp ko du ngeen seeni mbokk doo mbokkam waaw ñooñu ñëpp bu ñu defee réquisitoire ba ni xam nañ leen ba noppi qu'est-ce qu'on fait madame la préoccupation fondamentale bi ñu am bi mën a yóbbu suñu conviction mooy ñu wax ñu ndax ki yor ngànnaay ak boor bu mu mënti bokk Birame Souleye bu yoree ngànnaay ñu gis ni yor na ngànnaay loi d'amnistie bi ndax day muccal Birame Souleye waaw wala déet mooy suñu préoccupation fondamentale de quelque boor que ce soit ki wàcce ba kenn ku torturé ku def acte dégradant suñu question mooy ndax loi bi ni muy mëdde li ñaaw téléphone yooyu ba tax ne nañ jubóo day mëdd seen jëf yooyu mooy suñu question bu suñu xel dalee ci loolu parce que moom la njaboot yi laajte moom la mbokk yi laajte moom la mbedd mi laajte moom la avocat yi laajte moom la experts yi laajte ñenn ñi buñ ci amee tontu bu leer ànd ak yéen ci voté ko parce que su boobaa man sama xel bu leeree ma voté loi bi